بالله من شر الشيطان الرجيم وصلى الله على الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم bokk jullit yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay ñu leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek ci seen émission Shukran waaja nekk ci cëppaa ndaw nag euh, tey ñu fas yéene ci waxtaan nag lu am solo muy crise des valeurs te crise bi gën a yéeme nag mbokk yi yàllaa ngi natt sunu borom bi subhanahu wa taala jigéen ñii ñoo ko dese tey bokk na ca kersa bokk na ca kersa bokk na ca xorma ndax lu jullit bu góor di def am ca yàlla yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala dogal na ko jullit bu jigéen defee dabu ca yàlla ndax yàlla mi bind fokk mu jël li mu bind am nu ko exploité ci suñu biir moo tax mu wax ci alquran ni innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati wal saadiqina wal saadiqaat wal saabirina wal saabiraat wal qaasiina wal qaasiaat walxaafidina furujahum walxaafidaat wa daakirina allaha kasiran wa a aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima sadaqa allahu alazim yàlla nee na jullit bu góor bu wàmmatu teg boppam ci tànk teg boppam teg tànkam ci ci ci ci siraatal mustaqim am na jullit ñu jigéen ñu mel noonu ni way gëm yu góor ame ni la way gëm yu jigéen amee waaye ni woy ragal yàlla yu góor amee it ni la way ragal yàlla yu jigéen amee waaye ni woy dëggu yu góor amee it ni la way dëggu yu jigéen ame woy muñ yu góor ni mu amee ni la ame ci jigéen ñiit ñu mën a muñ waaye ñi ragal yàlla ci góor ñi ni mu amee ni la amee ñu ragal yàlla ci góor ñi di toroxlu ci jigéen ñi di toroxlu waaye ñu gis ne ni ñu way woor yu góor amee ni la way woor yu jigéen amee ni ñuy wattoo seen bopp ba du def lu jàdd yoon ci góor ñi noonu la am ñu jigéen ñoo xam ne noonu la ñuy wattoo seen bopp ñoomit it ba du jàdd yoon kon daal yàlla nee na préparel naa góor ñu baax ñooñu ak jigéen ñu baax ñooñu àjjana joo xam ne pay bu yaatu lay ànd bu ñuy dugg mbokk yi yàlla nag jël jigéen def ko symbole boo xam ne bu fekkoon am na atelier bu yàlla di xëy ci kaw suuf dañu naan biiru jigéen ci la bokk ndax place bu xat la boo xam ne boo ko seetee matul trente centimètres yàlla di fa xëy di wàcc ba tëgg fa nit ci ñetti lëndamit nag la ko tëgg mel ni ko yor compas bi mu koy tracé amul kenn ku judd sa bët bi ëpp ba ca des kiy judduwut bët bii ne ca kanam bii ne ca gannaaw yàlla daal moo tracé nit ca xarañteefam ci biiru yaayam ba mu mel na mu ko soxlaa mu xëy génne ko yàlla moomu nag moo ñu bàyyiloo xel jigéen ne na ngeen ko bàyyi xel moo tax sax dangay seet ne ci sa jur bi nga demee bay toppatoo sa ñaari wayjur wayjur wu jigéen lañ la wax ne na la nga ko gën a dimbali parce que moo gën a néew doole coono yi ci néegu sëy yépp daanaka boo ko seetee wayjur wu jigéen ko gàddu ndax mooy ëmb mooy imbi mooy boot mooy nàmpal bàyyi day xëy wuti rek waaye yaaye fi des ak caprice xale kon kooku jaadu nañu bàyyiwaat ko xel moo tax alquran wax ni euh, wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li xawmin yatafakkaruun yàlla nee na bokk na ci samay kéemtaan mooy jigéen laa bind bind ko ci seen biir bi ma ko sànni ci seen biir tàggat kenn ku nekk ci yéen sànni ci yow cofeel goo xam ne léeg leen nga gis góor ñépp naw ko ci daraja ñépp naw ko ci xam-xam wala ñépp naw ko ci wàllu àdduna waaye nga gis ne jigéen ju ndaw a koy manipule secret ba yàlla def foofu nag moom yàlla rek moo ko xam moo tax yàlla ne sama def-def bii de ku amul xam-xam wala nga fàttali wala nga dawal sa xel tuuti mbaa nga doon nit koo xam ne sa xel ñor na mun loo fàttaliku loolu mbokk yi moo tax jigéen daal li ñu mën a wax mooy marchandisu yàlla la waaye nag tey boo seetloo suñu jamono ji tey ni crise de valeur amee kersa bi muy ñàkk ci jigéen ñi lañ ko gën a seetlu tey ku ci doon publicité dara sax ci télé wala nga di ko def ci rajo mbaa ci beneen anam dangay seet ne sax jigéen la ñuy jël mooy doon objet bi nga xam ne moom la ñuy summi caricature ko pour mën a jaay liñ bëgg a jaay kon jigéen moomu bu xamoon valeur mbokk yi mënees na ko gën a fonkaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrun li ahli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ki gën ci yéen muy ki gën ci njabootam te man maa leen gën ci sama njaboot ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana jëflanteek ay soxnaam ci jëflante boo xam ne ñun tey suñu góori bopp yi tey am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ ko jombale seen bopp te kenn ku nekk kuy baax yonent bi la gën sallallahu alayhi wa sallam kon nañu yërëmaat jigéen ñi ndax nag bokk na ci li mu ñu dénkoon bi mu fiy jóge jigéen ñi ci lañ bokkoon julli ci la bokkoon ak ñi nga xam ne ñoo leen tane te yilif leen ku ci tane nit te yilif ko mbokk yi na nga dawal sa xel te xam ni yàlla jaarale dogal bi ci diggante bi waaye amuloo ñetti nopp mu am ñaari nopp amuloo ñaari tànk mu am ñetti tànk manqué wul benn cër su ca yàlla dogalee ak kilifteef war nga ko sante yàlla ta xam ne am na lu yàlla def sa diggante ak moom ñu bàyyiwaat xel ñi ñu yilif comme ni ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénke woon wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu